ñàkkum ndox mu métti métti lañ ne ci Touba ci jamono yi ci waxtu woo xam ne jàngoroy coronavirus mu ngi lëmb réew mi waaye tàngoor wu métti métti woo xam ne nemmeeku nañ ko ci diwaan bi askan wi ñu ci bëree bëri di daj lu métti lool ngir am ndox ndax ay forage yoo xam ne seenub lim toll na ci juróom faan ay pompe xibaar bi wër réew mi ne mbooleem site internet yi rajo télévision ba ci réseaux sociaux yi fenn fu ci nekk ñu fay joxe xibaar bi nga xam ne moo am Touba muy ñàkkum ndox mu métti méttee métti. ñun nag waa quartier bëgg Bamba ñun ñoo gën a sonn ku sonn di am quartier bëgg Bamba kër wele quartier maam jaara magasin baay Daam ñoom ñëpp ñu ngi jooy am ndox ñàkkum ndox ak mbaar ya. dëttuñu nelaw ndax ñàkkum ndox mi sa sangootuñu mën naa ne togg gi sax defatuñu euh, heure. ñëpp sonn. mboolem askan wi nga xam ne nag ñoo yeewoo ci dëkk bi rawatina ci mboolem quartier yi nga xam ne ñoom la ñàkkum ndox mi laal ñu jooytu fu ne jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy dund ci jamono bii. muy quartier Touba Lansar Xayra Cham Alieu Touba Feto Daaru Salaam Madiana ba ci Daarul Karim foofee fépp ñu manqué ndox lool. 88 628 19 02 asalaamaaleykum allo allo. salaamaaleykum. salaam. maanaam Sow la moo di Nafou Salaam. Sow bisimilah ñoo ngi lay ziar Modou Mamoun Gadiaga nga nekkal ci ligne bi. ñoo ngi sant bu baax alhamdulilah. ah ñun de danoo mar ñun waa nañ torop dañoo roota root ba dañoo feebar. koo ci gis mi ngi jeex tàkk ndaxum rootaan. jafe-jafe yooyu sax ki nga xam ne mooy chef de service régional bi yor wàllum ndox mi ci région de Diourbel di Omar dem dëggal na ko waaye di ci indi ay leeral. boo gisee loolu nag dafa am juróomi forage yu paan juróomi forage yooyu moom mooy rahmatul ahad bi nekk ci université euh, forage Sam tam bi nekk ci quartier Sam forage Lansar bi nekk ci quartier Lansar forage FKB bi nekk Janatu ak euh, forage F4 euh, bi nekk Kër Ñang juróomi forage yooyu dañoo am solo lool ndaxte forage yu mag lañu juróom ci forage sax doon na paan te du am jeexital yi waaye nag juróom yii nii ñoom jeexital bi ñu am jeexital eh, méngoo na ak eh, solo bi ñu am ci biir réseau Touba bi. situation bi dafa métti ba nga xam ne te ci kanam rek moom moo nekk solution bi nag actuellement nag parce que boo duggee ci internet bi sax di suivre wala nga déglu dafay mel ne que ci kanam moom mooy maire de la ville de Touba. parce que même pompe marché yeeg activités yi nga xamante ni maire daf ko waroon a def don yi nga xam ni ko waroon moo porté combat a suuli nañu dimbali génne soixante ko ko saafara ci pompe yooyu le mu jël lu toll ci ñaar fukki citerne mu jébbal ko yenn ci quartier yi nga xamante ni ñoo amee woon jafe-jafe ndox ngir ñu jàppale ci laata muy réparé mboolem pompe yi nga xam ne ñoo paanoon. depuis ndox mi manqué léegi léegi ay deux mois wala trois mois yëpp kenn ku nekk bala ngay naan da ngay sonn loolu ndax danañ dox ay ay kii doog a roote ay bidon bidon fukki dërëm la jënd. ak Touba Ca Kanam yéen ngi ci bu baax yàlla na yàlla jëme kanam ci barke mun taxaa. askan wi nga xam ne nag amoon nañuy jafe-jafe lool ci wàllum ndox mi ba dox ci jéegoo ci lañ dem daal di seeti waa Touba Ca Kanam ngir ñu saafara jafe-jafe yooyu nga xam ne ñu ko doon dund tam bàyyeekoo ci ñàkkum ndox mi ginnaaw bu leen waa Touba ca kanam dégloo kuréel gi nag daal di jóg fa yéene dox ay jéego ngir saafara jafe-jafe yi ci njiitalul Serigne Abibu Mbàkke moom Cheikh Mohamad Fadal mi nga xam ne mooy jëwrinu liggéey bi ànd ak yeneeni kilifa ñu amal jotaayub waxtaan ak waa hydraulique ak maawu rahmati ngir càmbar jafe-jafe ñàkkum ndox mi ak naka lañ koy saafara ci noone la Touba ca kanam daal di soobu ne dana jënd juróomi pompe yi nga xam ne ñoo ci dëkk bi wax nañ ko ña nga xam ne ñoo yor ndox mi ca Dakar muy ministère bi yor eau et jaar ko ci OFOR waaye it amuñu fa solution bi. ne Touba ci kanam ba mu yëgee na manqué ndox am na ci dëkk bi léegi noppaluwut guddi noppaluwut ba cëkk waxtu wu ne ni ngi waxtaan ñi ngi xool ñi ngi seet ba xam nuñ mën a fexe ba ndox mi si te doy. waaye tey ji yàlla defal nañu feex ba fii nu taxaw. am na ñetti pompe yoo xam ne incha allahu taala fii ak suba danañ ko tàmbalee monte ci forage yi nga xam ne ñoo manquoon ñu manqué woon ay ay pompe ci noonu la Touba ca kanam jóg ni nga xam ne noonu la koy defee saa su ne saafara jafe-jafe yi nga xam ne ñooy am ci dëkk bi ci diirum ñetti fan rek mu daal di jënd ñetti pompe yi te fas na yéene jënd yeneen ñaar yi nga xam ne moo ci topp ngir juróomi forage yépp mën a dox dëkk bi fenn bañ a manqué ndox ginnaaw bi ñu jëndee pompe yi ba noppi amal nañ jotaayu waxtaan ak kilifa yi nga xam ne ñoo fi teewal nguur gi nekk ci diwaan bi maawu rahmati waa hydraulique ak kilifa yi ngànk liggéeyub Touba ca kanam ñu waxtaanee jafe-jafe yi nga xam ne saa su ne mi ngi am ci ndoxum Touba mi waaye it pompe yi nga xam ne dañuy gaaw a paan loole lépp lan mooy sabab gi waaye yan yoon lañ mën a jaar ngir saafara ko. jafe-jafe yi nga xam ne moo am ci dëkk bi di ndox mi manqué Moustapha Dieng mi nga xam ne moo jiite Maaw Rahmati dëggal na ko. yi ñu toll ay jafe-jafe yu tar am na ci Touba bi juróomi forage yooyu paane mu yoon lu metti ci askan wi te saafara si ngeen ci indi muy lu ñëw ci waxtu wi ñu ko soxlaa. yéen ngeen taxaw ci ci li muy jëmp jëmp lii yàlla may ñu ko tey jii ñu taxaw fii di ko réceptionné. bi loolee lépp yembee ci lañ jubali ci forage bi nekk ci Cham ànd koog Maaw Rahmati ak waa hydraulique ak mbooleem technicien yi yor liggéey bi ñu sóobu ci réparer pompe yooyu ngir ndox mi mën a dellusiwaat. liggéey bi nag ñi nga xam ne ñoo di techniciens yi dañoo liggéey ci suba gi ba ci guddi gi ngir xam ne ñàkkum ndox baaxul ci dëkk bi ci ëllëg sa bi ñu xëyee ci la liggéey bi daal di mat ki nga xam ne nag mooy jëwrinu liggéeyub tubaa ca kanam di sëriñ Abibou Mbacke moom sëriñ lu ñëw ndox mi tàmbalee sotti ñi nga xam ne ñoo di askan wi bégaat lool santaat tubaa ca kanam ci seenu taxawaay يا حي يا قيوم يا مؤمن أنت المؤمن والكريم fan yi taalibe niñ sonne ci am ndox fu nañu di fa coow nga xam ne nit ñi nañoo topp tawal ji di ci coow ba fàtte ndox mi nga xam ne am na ñoo xam ne jeneen tawal ji ni am sax moo gën a métti ndax yeewu quatre heures bëgg a jóg doo mën a jóg six heures nga am autorisation pour gën dem yanu ji am na ñoo xam ne plus de deux kilomètres quatre cinq dañu koy dox dem yanu ji ñibbisiwaat seen seeni kër préparé dem marché dellu siwaat war a boole loolu am góor ñoo xam ne bu ñu wàccee dañuy dem wuti ay saret dem rooti pour indi seen waa kër ñi am kattanu mën a jënd ndox jënd ko ñi ko amul mu demee noonu tey jii bu taalibe sëñ Tuubaa yëpp maase ñu ne dafa am daayira bu tudd Tuubaa ca kanam tey bu ne santé ñu seen leen ca bu ne assainissement ñu seen leen ca tey jii ñu dem ba dëkk bi ñëpp jaaxle ñu ne bu doon ne benn forage mais ñu ne juróomi forage par nañu pompe mu nokk loo xam ne lu baree bari la kon yéen taalibe yi li ñu leen di jox defal ngeen leen ko fii ngeen ko war a def bu njëkk dañuy wax ne bu doon badar dañuy jeex waaye góor du ñibbi léegi badar amul 1000 francs ndaxaw kon yow bi badar jeex na badar amul comme bu doon badar dañuy jeex ba waaye góor du ñibbi léegi badar nikul sëñ Tuubaa manqué ndox am na sëñ Tuubaa nangam nangam te waxoon naa ne sëñ Muntaxa mii tey ba laajoon suñuy bakkan nu jox ko te moonu jëkka woon yoonu jël sa alal joxe mhm. te ñii ñuy laaj xoolal déggoo ñu ne sama koñ déggoo ñu ne sama baay déggoo ñu ne sama nijaay am na ñoo xam ne amuñu mbokk mu dëkk saam mais tey bi ñuy defar sëñ Tuubaa lañ defaral dañoo ñëw rek ñëpp bokk am na ñoo xam ne boo laajoon tey jii sax kan mooy xalifa saam gii xamuñu kon ñoom sëñ Tuubaa la ñuy liggéeyal loolu mbir mu leer la kon ab li li li bi digle woon ci sarti rek di laaj luñ man te di ko def ful xam loolu moom la Tuubaa ca kanam di def tey nag damay wax toujours ne ku mën a dem nañ ko ànd ak moom mu dem mais fu ne nga samp fu kuréel fu ne nga ji fa jéem a woote doom ju juddoogut ñu toll ci traitement naan nday ja toll na diggante avortement mën naa am lu ne mën naa xew di su ko jëndee ku judd bay ñaadam ñaadami Touba Kanam daa judd te yori tànk kon nañ ko xont ñun ñëpp mu dund wasalaam li tàmbalee saam gi moo leen di servir te yàlla dogal na paanoon na ba mu paanee léegi kenn xamut kañ la fu ñu ne danañ buñ fa demee mu ta mu dem nañ fa wa nag yéen la ko yàlla jaarale kon suñ borom mi nga xam ne moo mën a dimbalee jaam yàlla na leen gën a dimbale noonu day wax dëgg sant mënta weesu sant. Touba itam nag li yaatu na lool ëmb lépp. waaye nag ndokk bi ngeen ciy dox. te téye ko baatab Touba rek. kon nag yal na li ko seen borom téyel. ndax si Touba ci ngeen di dox nag. kon nag ngeen di doxee ci Touba Touba yi lépp. nanu lépp téye muy Touba rek. nit nag day am jom loolu maa ngi koy wax sama bokki taalibe bi liggéey bii ku ci def ñaar fukk xam nga ku ci deful ñaar fukk xam nga ku ci góorgóorlu xam nga ku ci góorgóorlu xam nga te dana jariñ ku kon nag na ci ñëpp def yitte ku ci defoon yitte nang nga ci gën a góorgóorlu ku ci defutoon yitte gën cee def yitte mm-hmm. te xam ne lii ciy saayir li ciy bàtti na ko ëpp Touba Ca Kanam daal nii rek la mm-hmm. maanaam ñoom daal ay taalibe lañ yoo xam ne ñoo jóg di ay ndaw ngir bëgg a liggéey Sëñ Touba di làmbatu nag fu ñu ko liggéeyee te Sëñ Touba xam ne bëggam képp weesu Touba mm-hmm. liggéey Touba moom dinaa foo ko làmbee daj ko fa ndax Touba bëggam ci àdduna bi day am ak bëgg ci àdduna Touba lay doon man day wax toujours ne lépp loo xam sunu borom nar na ma ko jox ëllëg na ko jox waa Touba Ca Kanam ba noppi ak ku ci bokk kon maa ngi ñaan ci bakk Seex Xaadim yàlla ngeen am ngërëm Sëriñ Tuubaa ñëpp yàlla nga ko am te ñaanal sunu kilifa gi nga xam ne mooy jiite liggéey bi muy Seex Muntaxa yàlla yàggal ko fi Tuubaa moom du Sëriñ Tuubaa lu ñu bëgg rek mën nañ ko am bu murid yëpp ni ñu ko woote dootu am ci Tuubaa mukk ci kon maa ngi ñaan ñëpp gisee ko ko wootee te mooy mooy murid bu ne jox ñaari ñaari téeméer par weer weer wu ne ñu ñaari milliards ñaari millions mënu yi euh, at mi nekk ñaar fukki milliards ñeent loolu bu ñu ko soxlaan lépp lépp ci àdduna dañ ko am laa déggee sama ñu ko indi koon fii te ñaan ndox mi nii mu ubbi ko yàlla na suñu mbir yëpp ubbi ko euh, yàlla na fi yàlla dàq ràgg dàq fi ràmm dàq fi lépp murid bi daa war a gëm ne kun amaami kun xalfi kun waseebi wa fi yamini simaari yaa rajaay kuni ak waj bi loxa xayr mi ne jihaat yi ak sit yi wax fi ani afaat maanaam ñun suñ suñ mun taxaa wax na ko a dem dañu nekk ci bii ñàngu nangu bii ñàngu nangu nag ku ci nekk yërtu nañuy lu waaye tërëdi tërëdi maraam du du daj kon kon nañ rafet njortu dalal xel tey ñaan rek subhaanahu wa taala mu gën ñoo nag ci rek yàlla mu ngi bi rek. ginnaaw bi ñu réparé forage bi nekkoon ci Cham ci lañ yi ci beneen forage muy Kër Ñang ndax ñi nga xam ne ñoo di askan wi mënuñoo xaar benn yoon ci jamono bi nga xam ne dafa métti lool tàngoor wi rawatina jàngoro ji nga xam ne dafa nekk ci réew mi te ñu soxla askan wi di set saasu ne te set googu mënoo ko am ci ñàkkum ndox. Touba ca kanam àndaat ak waa hydraulique ak maawu rahmati tàmbalee réparé forage bi nga xam ne moo nekk ca Kër Ñang noonee it lañ koy toppee ci yeneen forage yi nga xam ne ñoo paan te seenub lim toll ci juróom fii ci Touba ngir ndox mi mën a delsiwaat ci askan wi ba jafe-jafe yi nga xam ne moom lañ doon dund ci jamono jii lépp mën a saafarawu Touba ca kanam nag nii rek la ko fas yéenee taxawee muy mbooleem kuréel goo xam ne dafa nekk ci dëkk bi wala askan wi ñu am jafe-jafe joo xam ne dafa jëm ci nekkinu askan wi fii ci dëkk bi buñ ko déggee taxaw ci ba saafara ko loolee nag di liggéey boo xam ne mbooleem taalibe yi kenn ku ci ne war na ci jàpp ci ñaar téeméeri dërëm yi muy joxe ci weer wu ne ni xaalis boobu la ñuy dugalaat ci liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy amal ci Touba. dièse 144 dièse 621 dièse